Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Djanga du Tedegu. Notre force. Le traitement de l'info. Tante bi nag gis ngeen ko nii li leen ko waxee woon tant boo xam ne la tante bu yéme, yéme, le, macha allah gis ngeen tant bi nii mu nekk tant boo xam Serigne Mouhamed Ibrahim mi ngi noonu taxaw ne macha allah Euh, ñu wan leen bi oto yaa ngi nii di ko yëkkati oto yi lenge yaa ngi noonu di yëkkati baas bi nga xam ne mooy tànt bu lew nañu seen kër maam xalifatul xaaji Muhammad radiallahu taala anhu gis ngeen macha allah tant bi noonu ni ngeen ko waxee woon rek fu liggéey ba tool rek dañ leen ko wan fa tabarakallahu tànt bi moo nekk noonu mu nekk tànt bu yéeme yéeme daal macha allah fa tabarakallahu yàlla yàlla nañ ko ràpp ak jàmm yàlla nañ ko roon ay téeméeri at di si gàmm waaye ronu ko ay téeméeri at di si ziyaara yàlla def ñi mu nekk suñ njiglaay njig mboolem euh, di ñaanal nag mboolem koo xam ne def nga si sa dërëm tabarakallahu mu doon loo xam ne lu ama am solo la ñëpp ñoo si gis seen bopp seen dërëm ku nekk def nga si sa addiya taalibe yi mu xaddam yi ak xeet yi ak mbooleem nag xam ne njaboon nga ci xalifatu xaaji Muhammad tabarakallahu Uras Info xibaar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à réel Uras Info jàngat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info